asalaamaaleykum mbokki al ibadatu wal xidma cheikhuna Mbacké Abdoul Wadoud mooy nuyu ñëpp di saare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ma bëggoon a wax nag tuuti xalaat rek ci aju ci waxtaan wi jëm ci yalwaan ci daara mu yalwaan gi donga donga daara di yalwaan Euh, dégluwuma nag li kilifa yi li ci kilifa yi wax amaguma man koo déglu waaye dama ne naa ci euh, joxe xalaat rek bu yàlla dogalee am ci lu kilifa yi waxoon ñoo xam ne kon loola waxoon nañ ko ba noppi euh, foog na daara yalwaan ci daara ku ciy waxtaan la ñuy tàmbalee mooy xool ndax dong bi jang alquran ci dara yal muy ak yalwaanam ndax day lu gën wala ak yalwaanam ak ñàkk yalwaanam ñoyam amut lu ci gën wala ñàkk yalwaanam mo gën foog naa ne eh, lo gestu boobu mo wara jitu bañ am ci tontu ba nopi gëstu boobu itam lay tax ñu man ca àggit mooy xam lu waral yalwaan lu ko waral bu ñu lu waral muy am ci la ñuy xamee ndax am gi moo gën wala ñàkk am gee gën wala am geeg ñàkk ñàkk am gi man bu ma seetloo damay jàpp ne yalwaan aajo moo ko indi ci daara ajo aajo aajo joo xam ne itam euh, aw nekkin la rek mooy ki nga xam ne dañ koo jox ay donga mu leen di jàngal ba noppi ñu bàyyi koog donga ya mu leen di dundalitam te ginnaaw mi ngi jàngal donga yi munte dem di fàggu jiwaat lu mu leen dundale dundale koog njabootam taxoon ñu yalwaan loo donge yi ngir ñu am luñ dunde ñoom ci seen bopp ak it moom mi jàngale akum njabootam ndax moom mi ngi toog ngir donge yi demut wuti lum dunde mu sant donge ñoom ñu dem wuti luñ dunde ñoom mu amaale ci dara moom itam mookuk njabootam luñ luñ dum luñ dimbali ko ñoom itam ba tax ñu daan bu waxtu bu añ jotee ñu dem yalwaane añ luñ leen sarax ñu lekk ko ñoom seen bopp bu la jotee ñu yalwaane reer luñ leen sarax ñu lekk ñoom seen bopp ba suba jotee ñu suba lañ leen di sarax ci suba gi nag du doon lu ñuy lekk waaye dañ koy yët sëñ daara bi mu dugal ko ci kër gi moo tax lañ daan sarxe ay dugub la daan doon ay ceeb ay xeet yoo xam ne ay gerte ay sëb lépp loo xam ne daal du lu ñuy mën a jëfandikoo ci saa si waaye dañ koy yóbbu ca kër ga ñu defar ko bu ko defee sëñ daara bi ak njabootam di ca man di di ca dundee donge moom li muy yelwaan ci lay lekkal boppam loolu kon moo nekkoon foog naa ne loolu moo waral yelwaan kon aajo la aajo la joo xam ne li ko li ko waral moo ñu joxe seeni doom te bàyyee sëñ daara bi seen lépp bu buñ nangoo loolu kon dañuy jàpp ne doonut luñ taamu doonut luñ taamu ginnaaw doonu luñ taamu nag duñ mën a wax ne kon ak amam moo gën kon li ci des mooy ndax am nga ñàkk am gi ñooyam wala ñàkk am gi gën ñàkk am gi moo gën ndax am gi daa am ay lor yu ci mën a juddoo ak yu ci juddoo sax yu ciy juddoo moom euh, benn kii yalwaan du nekk ci sécurité ndax waxtu yi muy yalwaan waxtu wu nekk waxtu wu ñàkk sécurité lay doon am na jamono ak i béréb loolu daawuñ ko ragal ndax jamono yooya ak béréb yooya li ñuy tuddee insécurité bi am negani ci béréb yi nu nekk negani amutoon te jamono yooya ak te béréb yooya waaye bu dee negani moom béréb yi nu nekk ak jamono ji ñu nekk. sécurité dafa am ta waxtu yi ñu yalwaan waxtu yu yu leen di yu leen di gaaral la ci insécurité waktu waxtu suba tay rek waxtu digg ci rek waxtu gudd kon insécurité mo mi ngi ci euh naka non it dana wañi seen waxtu seen waxtu njàng waxtu yi jang yelwaan bi dana ko wàññi ndax waxtu yi ñuy def ci yelwaan waxtu woo day wàññi ko seen waxtu nga xam ne moom nañ ko def ci njàng leneen liit lu mën a am la te mooy ku tàmm yelwaan man na mën naa tax mu tàmme ca ak ak ak ak ak suufe daal suufe ak ak xeebu ak yu mel noonu ndax lu yonent bi waxoon ne loxo bi joxe moo gën loxo bi jël loolu tam nag day feeñ kuy kuy laaj moom euh, laaj googu mën naa def ci moom nag ak xeebu wala xeebe xeebu xeebu sax mooy xeeb boppam wala jàpp ne ñeneen dañ koo gën wala dañ koo féete kaw te loolu tam gënul ci nit moo tax ma jàpp ne kon ñàkk gee am moo gën foog naa loolu mooy gëstu bi war a jiitu ma ñëw ci beneen audio nag wax ci gëstu bi ma jàpp ne moo ci war a topp mbokk yi Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud kon gëstu njëkk bi mooy kon moom laa noppi léegi dama ci jàppee ne ñàkk a yelwaan moo gën ñiy jàng alxuraan ci daara yi bañ a yelwaan moo gën bu dee bañ yalwaan moo gën nag li ci topp kon mooy lu ñuy def ba mën a nekk li ñuy def ba mën a nekk li ñuy def ba mën a nekk mooy la ko waral rek la ñuy saafara la ko waral mooy sëñ daara biñ bàyyee dongo bi te féetewuñ ko féetewuñ ko fenn bàyyee ko léppam rek te moom munta dem di wutal boppam lum leen yore ndax liggéey bim bim nekke loolu rek la ñuy saafara saafara saafara si mooy lan mooy buñ ko tënkee moom ba munta wutali boppam lum yore donge yi akuk njabootam dañ koy fàggul loola dañ koy fàggul lum leen lum yore donge yi akuk njabootam mu tàmbalee ci ñi yóbbu seenu njaboot na am luñ koy jox ku yóbbu njabootam joxe ko ci daara bu fekkee kay jàngale laaju dara it moom na am lum koy jox na ko ca jàppale na ko jàppale ci xale bi donte mënuñoo wax ne sax na koy jox lu mën a yore xale bi ba mat sëkk waaye na ko ci jàppale kenn ku yóbbu njabootam ci daara ku ne na jàppale sëñ daara ba ci njabootam googu mu fa yóbbu benn bu bu dee ku yóbbu njabootam ku nekk jàpp na ci da cee topp mooy mbooloo mi itam jàpp ci mooy société bi jàpp ci société bi ay kuréel la kuréel yi kuréel bu ne ci kuréel bu ne jàpp kurel yi bari nak kurel bi ëmb kuréel yëpp mooy li ñuy tudde réew mi moy état bi état bi warna ci japp warna war naa jàppale sëñ daara ci li tax mu mëna yor ay dongam yor ak njabotam te ba donga yi duñ bu ñu waccé itam dëkk yi itam ñi koy yilif war nañ cee jàpp bu ñoccaatee biir dëkk bi kuréel yi fi nekk moo xam biir dëkk bi la moo feneen lañ nekk waaye ay kuréel xam daa dajale ay nit xeeti mbootaay ay daayira ak ko nuru ñooñu tam war nañoo jàpp ci daara yi bu ñooñ jàllee nag képp koo xam ne rek eh, am na lu mën a jàppe ci daara rek mu jàpp ci moom xam ne du doon ci sax waaye ci turu boppam maa ko am lu mën a dimbalee daara muy dimbale daara yi yooyu yëpp bu dajee suñ daara bi dana mën a am lum jàpp man cee yor këram man cee yoraale donge itam ba duñu yelwaane loolu foog naa mooy ñëpp jàpp ci rek xam ne daara mbirum ñëpp mbirum ñëpp waaye ka ca jiitu nag mooy ka fa am njaboot kooku moom daa war am lum sasoo loo xam ne da koy da koy jàppale sëñ daara bi ci njabootam gi moo ko jox yeneen kuréel yi ci société bi itam ñoom it ku nekk jàpp ci bu la lépp dajee dana mën a nekk ndax bu loolu amul moom jàpp gi bu demewul noonu benn am kuy jàngale di yelwaanloo nit ndax mooy tax mu mën leen a yor wala kuy jàngale di fayu fay guy tax mu mën leen a yor bu dee ki yelwaanloo nit ñi moom li nekk ci yelwaan te ma ne gënut loolaa war a tax ba loolu wara si ko soññ kii fay itam li ci nekk mooy pay gi tax man leen a yor moom it du ne ñëpp ko man ñëpp koy àttan te nag jullit ñëpp ñoom am nañ bëgg-bëgg ak sañ-sañu seen doom jàng alquran bu ne ko yàlla dogal man koo makkal makkal ko te buñ bàyyee nag ñuy jàngale ñépp di fayu boobaa ñi mëna fay rek kon ñoy jang wala ñoy jangulu ñom seen njaboot di jang té loolu tam du gën li tax nak ñepp mëna jang ñi mëna fay ak ñi mënta fay mëna jangulu moy ñepp japp ci rek ñepp japp ci daara boobaa ki man bu joxee doomam dana am lu muy saso waaye dana am leneen lu wees saso itam lu muy def nit ki nga xamee ne sax man na koo def fu fu njabootam nekkut ku fu njabootam nekkut tam man a jàpp tam mu jàpp ci daal bu àndee foog naa eh, mooy tax yalwaan mi nga xam ne mi ngi am ci daara yi te jàpp ne gënut tax mu mën a deñ ma ñëwaat ci mujj nag boo xam ne ci lay mottalee li may mottalee rek mooy wax nag ne am na yalwaan moom bi may wax li ko waral mooy aajo la loolu ca cosaan la la ñi nga xam ne itam jàngale dëgg-dëgg moo leen tax a jóg ñoom buñ dajan wàlloo seen seeni dongo ñoom aajo la waaye nag am na ñu yalwaan loo ñuñ tudde ay donga te fekk du aajo waaye dañ ko defub liggéey te loolu foog naa ko xam xam na ne am na am nañu fexe ba dajale ay xale mbub mbubboo xam njàngale te fekk wut xaalis wute xale yi xaalis moo ko tax a jóg am na ci ñooñ sax dañ ciy déggoog way juri xale yi nga xam day mel ne way juri dañuy luye seeni doom dañuy luye seeni doom kañ collier di di wute xaalis di leen ca seddu ñoom way juri loolu ku xam-xam ne am na ci réew mi loola moom la koy dindi mooy yoon a koy dindi yoon yoon koy dindi yoon nag balam koo mën a dindi mooy day xam ñi jàngale dëgg-dëgg tax a jóg ak ñi nga xam ne wute xaalis ay xale moo leen tax a jóg loolu moo koy maye te loolu la koy yombal nag mooy ñu tëral mbirum daara ba mu leer bañ xam ne lu mel nii mooy daara lu melut nii du daara ku ko tudde daara itam da ko def tumtukaay bu mu bëgg a wute xaalis waaye du daara loola mooy tax yoon mën a xàmmee ñi yor daara ak ñi yorut daara ba ñi war a jàpp ci daara yi ba yalwaan mi e, jeex itam danañ xàmmee ñoom it fa ñuy jàpp ak fañ dul jàpp loolu nag li koy yombal mooy ñi yore daara yi àndandoo ak ñi yore réew mi ñu bokk tëral nu mbirum daara yi tëddee ci réew mi ñu bokk tëral euh, ba xam lan mooy daara lan lañ war a yore daara lan lañ war a doxale ci daara ba nga xam ne ku tënku ca loola ñu xam ne kii daara la yor képp ku war a jàpp ci daara mën a jàpp ca daara joojee ku tënkuwut ci loola nag ñu jaarale ko ci yoon mooy ñu dox diggantem ak di wute xaalis xale yi di mbubboo daara te fekk jàngale alxuraan taxu ko jóg loolu foog naa ne bokk na ci saafara si itam ñi nekk ci daara yi àndandoo ñi daara yi kon àndandoo ñi yilif réew mi ñu jàppalante ba tëral tëralin wi tax ñu nos mbirum daara ba xam ku yor daara ak ku kuy mbubboo daara yooyu da laaj amoon ci xalaat di ma ne naa ko dugal rek ñàkkut ne mbokk ma jëkk a wax wax nañ ci waaye nag ginnaaw dégloogu ma li jiitu ma ne rek kon naa ko wax noonu rek luñ ci fekkoon ñoo ko baax na luñ ci fekkoon waxuñ ko itam eh, ko ci gis lu am njariñ itam eh, mu man koo jariñoo rek jërë ngeen